dal leen ak jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien l'observateur libération la turbine Walf quotidien les échos source a vox populi yéenekaay yépp xëy yóbbu ñu Touba ci déclaration bi nga xam ne xalif général de mourides ni démb daan na koy defa jaarale ko ci porte la am Serigne Bassirou Abdou Khadra yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu en tout cas Touba nag li nga xam ne moo leen naqari mooy rey yu yi nga xam ne jamono ji nemmeeku nañ ko ci réew mi Serigne Mountakha Bassirou xalif général des mourides la mu xam le nag nee na bàkkanu doomu aadama dafa foor te yàlla daf ko fonk te képp koo xamante ni rey nga nit maanaam dañu laa war a rey waaye nag képp koo xam ne rey nga nit te teyu ko te ki nga rey muy góor maanaam war ngaa joxe lu toll ci téeméer ci ay giléem ay mbokkam bu dee ki nga rey te teyoo ko muy jigéen war ngaa joxe lu toll si juróom fukk ci ay giléem ay mbokkam journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas lu jëm ci rey yu bari yi nga xam ne moo am ci réew mi Touba wax nañ ci lu leer ndax nee nañu képp koo xamante ni xam nga ne boo rey nit ñu daal lay rey maanaam ko def yéen a kaay gii du l'observateur mu cas li am Bambades waa Touba yëkkati nañ seen kàddu la ñu xamle nee nañu am na loo xamante ni ñoom waa Touba waxuñu ko waaye diine l'islam ñoo ko wax képp koo xam ne maanaam rey nga ne te tey ko dañu la war a rey képp koo xamante ni da sàcc sab loxo la ñu ko war a dagg ba tey ci biir surnal bii di Vox Populi mu ñu xam lañu lu jëm nag ci ñàkku kaaraange gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi waa Touba wax nañu ak nguurug Sénégal ngir nag ñu jël seeni matukaay ngir nag mën a aar askan wi journal bii de la Tribune ñu fekk fa njiitu réew mi di Macky Sall la mu xamle nag nee na ñoo ngi waajal ab conseil interministériel ministériel boo xamante ni lu jëm ci wàllum kaaraange lañ fay waxtaane diwaanu Tamba kaaraange amu fa yéen kaay gi di réew mi ko dujee mu ñu xamal lan ñu benn malien la ñu fekk ñu rey ko sànni ko ci àll bi journal bi mu ñu xamal lan ñu Pape Alioune Fall mi nga xam ne moom la ñuy tuumaal ne moo rey Binta Camara guddeem gu njëkk fanaan na ko sa kaso ba journal bi yóbbu ñu Italie mu ñu xamal lan ñu benn sénégalais boo xam ne teg nañ ko fa loxo ci lu jëm ci wàllum drogue drogue lañ ko fekkee journal bi du l'Observateur mu ñu xamal lan ñu Ousmane Beng mi nga xam ne moo bindoon ci page Facebook di wax ne jigéen ñi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci réew mi dañu leen a war a rey ndax Sénégal jafe-jafe yoo xam ne am na ko jigéen ñi ñoo ñu ko teg Ousmane Mbeng moome nag ay mbokkam nee nañu Ousmane Mbeng wérul ndax doon nañu ko fàcc lu jëm ci koo xam ne maanaam àndul ak te Ousmane Mbeng dafa am mbetteel dafa am déception ci lu jëm ci mbirum mbëggeel ndax dafa takkoon benn xale bu jigéen waaye nag xale bu jigéen ba ba mu ëmbee moom Ousmane Mbeng dafa jàpp ne ëmbalul jabaram maanaam keneen a ko ëmbal ba taxoon nag ñu daal di tàqali ko maanaam divorce daal di say am ba tey ci biir journal bi mbokki Ousmane Mbengue nee na ñu wérul ndax Ousmane sax bëggoon na fee xaro yéen a kaay gi mu ñu xamalaan ñu assemblée nationale ak lu jëm ci 94 yi nga xam ne ñoo ngi koy jaaba jonge te Ousmane Sonko tuumaloon ci Mamour Diallo lu toll ci fanweer ci ay nit yoo xamante ni war nañu leen a déglu ci lu jëm ci xamalaan ñu Pape Samba Mboup la mu xamle nee na Abdoulaye Wade ak Macky Sall ay nit ñoo xamante jàmm moo leen ñeel dox nañ si ngir nañu daal di jàmmoo waaye dafa am ay nit ñoo xamante ni fu ñu dégg jàmm daal Abdoulaye Wade ak Macky Sall defaroon nañ ko bam na cook maanaam ñu war a gisee waaye ay nit ñoo ko yàq Walf Quotidien mu ñuy xamal nañu Karim Wade yàq na parti démocratique sénégalais ndax dafa indi ak féewuloo ca biir parti ba ña ànd ak moom ak ña àndut ak moom jamono ji ñoo ngay giit a ŋaas journal bii di Source A mu ñuy xamal nañu Macky Sall doon na giit a ŋaas ak nag waa APR ñi nga xam ne ñoo nekk ca Paris la France ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn Macky Sall ba mu demee France dafa lànkoon kandaare na du recevoir ñi nga xam ne ñooy waa APR ndax da leen a mere Macky Sall laajee na lu tax nga mere waa APR ñi nga xam ne ñoo nekk ci Paris la France la mu leen xamaloon mooy ci élection yi dama leen a joxoon ab xaalis maanaam ñu daal koy lekk jëfandikoo wuñ ko ci li nga xam ne moo taxoon ma jox leen ko maanaam campagne bi Macky Sall nag journal bi nee na dana gën a mere boppam waaye nag rawatina waa APR ñi nga xam ne ñoo nekk ca Mauritanie ndax Macky Sall bi ñuy waajal élection yi dafa dem ca Mauritanie waa APR na jox ñu lu ñu jëndee oto Macky Sall génne lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay millions jox leen ngir ñu jënd ci ab jëndoon nañ ci ab oto de waaye oto boobu dañ ko mujj jël daal di koy jaay dañoo jël oto ba jaay ko